salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu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 صلاة وتسليم مع البسر سرمدا على من بمكسي مع الأمن والبشر gaaral nañ fi lenn ci dundu sëriñ bi gaaral nañ fi sëriñ Touba xam-xam loolu ay thèmes la sëriñ Touba ak tërbiya sëriñ ak li ñu doon jàngale jàmm jàmm sëriñ waaye lu aju ci jumaa ji taarixu jumaa ji diggante 1927 ba 1925 ba 1927 bi fi sëriñ bi nekkee jamono yi suñu Modou Moustapha bi ñuy teg fondement bi jamono yi suñu Fallou ba ñu jumaa ji àggee jamono yi Cheikh Abdoulaye ci yaatam ga jamono yi Cheikh Abdou ko àndee woon ak suñu Abdoulaye ak kóol yëpp waaye euh, taxawaay yi amoon ci biir jumaa ji muy nekkoon imam waaye nekkoon ki nga xam ne moo fi taxawee ajuma yi diggante 1989 ba 90 ji fi nekkee xalifa yi liggéey bi mu fi def ci diggante boobu jamonoy Cheikh Saliou ak taxawaay amoon ci jumaa ji jamono yi suñu Mouhamadou Lamine Bara jamono yi suñu Sidi Mokhtar bu ñu noppee ci loolu ñëw nañ ci jamono yi suñu Muntaxa waaye am na yeneen taxawaay yu am ci biir jumaa ji lu mel ni daaru maarif bi nga xam ne moo ne ci biir jumaa ji wax nañ ci taarix bi ak lañ fay jànge bu dee ren ji Serigne Mbacke Bousso lañ ko jàngee ak taarixu rawda bi muy barabu sëñ bi waaye tamit ak dund ak euh, liggéeyu daayira Moukhaddamatoul Khidma xam naa bu loolu jàllee dañuy lu ci bari at yi jàll waxtaan nañ ci. bu dee ren incha allah. da nga taxaw kanam. ñëw leen ñëw leen kon bu dee ren exposition bi ki ñu ko darajaale mooy Serigne Mbacke Bousso gëstu nañ ci ak dundam gëstu nañ ci am njàngam gëstu nañ ci ay réalisation bi euh, ñuy tari ci intérêt waaye nag suñu gëstu ñu ko gën a jëmale ci lu aju ci digganteem ak jumaa ji ca autorisation ba nga xam ne moom la ko sëñ bi loolu ak yeneen taxawaay yi nga xam ne am na ci jumaa ji moom lu mel ne euh, jubale na xëy na ak it yenn liggéey yi nga xam ne na ci ci euh, euh, nañ tamit dëkk yi nga xam ne fa la nekkoon daan fa tërgee ci ndigalu sëñ bi lu mel ni Lassar ak mel ni Guèye. nañ ko may mu ñëw bu ko defee euh, li mooy euh, rawdam muy barabu sëriñ bi nañ ci taarix bi waaye gëstu nañ ci ñi nga xam ne ñoo mos a yor rawdam yi muy barabu sëriñ bi ka ca jiitu di sëriñ Moussa Diop ka ca tege ci sëriñ Afia Diop ka ca tege di sëriñ Diop Mbacke sëriñ Ndiaye Bousso sëriñ Moussa Bousso sëñ Amady Soufiane bi nga xam ne moo fi loolu sëñ Maamu ba li fi Maamu nekkee ak njaboot si ñun bi ñu ñaan suñu borom yàggal leen te kàpp na leen gës gëstu nañu wàññi ci barab bi nañ ko liggéeyoon ci njëlbeen ba liggéey ci si Amadou Fallou defaat mu àgg fii xam ne mën nañ koo am ci barab bi euh, boo xam ne lu ci bare bare yow la ko àndal ñàkk dañ ciy teew ñu bari waaye day mel ne li ci bees benn mooy dañ fee fësal xam ne jàmbaar la woon ci liggéey bi jiite woon commission culturelle bi nga xam ne mooy taxawu taxawaay yi te mooy sëriñ Cheikh Madi Kara di la ñaan yow na ñaanal bu baax a baax suñu borom dolli doon liggéey fii fépp mu gàcce si ak ngërëmu sëriñ Tuubaa la ca mooy euh, infirmier bi nga xam ne moo moom la daayira bi di taxawal ci jamonoy màggal bi muy infirmier boo xam ne euh, bi di ko taxaw ci njiital sëñ Sëñ Abdou Lahad Massa nga xam ne ñoom taxaw ñi nga xam ne ñooy tawat day nekk ci jumaa ji waaye tamit dañ may ay garab li ko noonu ay tudd bu jotee ci ñoom ñoo nekk di taxaw malade xam naa loolu ci gàttal mooy nga xam ne mooy dañoo ci exposition bi euh, xam naa dañuy daal di jox waa bindkat moo di rek bu ko defee ñoom tënk ci bu gàtt bu noppee daal di jàll ci wàllu waaye ak ñoom bu ko defee sëñ bi daal di mën a joxe ay kàddu ndax wax dëgg. asalaamaaleykum wa rahmatulah. sëñ Abdou Bassir Mbacke Bada ñoo ngi leen di baax di leen ziar seen aafiya eh, ni ko sëñ Abdou Khadre waxee rek eh, ci moom kenn duñu wax dëgg yàlla eh, sëñ Abdou Bassir ndax ab liggéeyam la moom ñi koy liggéey ñoo koy seet saa su ne ni ma ko xamee rek lii nga xamante ni moom la tiim daanaka dañuy yem ci. ñeent yu mujj rek mooy ñi nga xamante ni dañuy bind ci yoon mooy ci bind ay bind yu safaan wax ay njuumte te teel gën a fës di gol maat yi ak docteur Wawan Mbaye kenn ku ci nekk day docteur tontu na la ci tontu loo xamante ni tontu lu xam-xam la def nañ ko ci ñaari xaaj xaajum ñaareel bi yàlla dogal na noppi na bokk ci li nga xamante ni moom moo gën na ci màggal bi moom mooy xaaj bi li mu génnoon daaw li mu nekk ñaareelu xaaj bi lenn lu ci nekk def nañ ko day xëy ma woon xam ne dafa xamal naka noonu tamit ñaari téere yi nag mooy téere yi nga xamante ni moom moo génn ci màggal yi muy téere bi nga xamante ni sëriñ bi moo ko daal ñu liggéey ko liggéey boo xamante ni lépp lu ci àddina bi def nañ ko lii tamit mooy téere masaali bu dinañ bi nga xamante ni sëriñ bi moo ko def liggéey nañ ko liggéey boo xamante ni mu mucc ay bi ci mujj rek nga xamante ni mooy Cheikh Ahmadou Bamba Abdoulaye wa Xaadimu Rasuul moom moo dajale boolem ak ci ñun seen ñi nag téere yoo xam si ren yi yu bëree bëri génn na ci nga xam si anamu jot rek ku nga xam ne ni bindikat yi murid yi ni nit ñuy waajalee di fentu daaj ci xas di yeeg ñee di xool yeneen yeneen kii ñoom noonu la ñuy tëjooy di lëral di xalaat di bind màggal bu jot rek ñuy génnee ay téere yu bëree bëri loolu nag bokk na ci liggéeyu association bi gannaaw foire bi nga xam si amoon na ci digal te xool ko woon Dakar loolu dikkaat àndaale ko waa mu xam ne wax dëgg yàlla ñu jaatal bi loolu liggéey bi ñu koy ànd mu nekk euh, taxawaay boo xam si dañ la koy seedal wax ni ba nga ñu boole ba léegi daal wax dëgg yàlla liggéey beeg tatagal beeg yaatal gi ñëpp sant nañ ci bu baax euh, seen changement ñu ngi sant bu baax nag ci turam waaye wax ni dafa amoon gàtt bu xamante ne moo tax ba ñëwul waaye liggéey bi daal ci gàttal moo nekk euh, stade bi nga xam si jagleel na kuréelu murid yi euh, biñ ci téere yi am solo xam ci bari ba dikkee gis nañ taxawaay bi ak yokk ci nga xam si xam na ci loolu jërëjëf xam naa ngir jëkkante ak waxtu wi dañuy jot dañuy jotal jotali kàddu gi Serigne Abdou Lahad Bousso Muxtaar mi nga xamante ne mooy wax ci turu sëriñ Afiya Bousso al imam mi nga xamante ne moo jiitee daayira Moukhaddamatoul Khidma ak mbooleem daayira yi nga xamante ne ak euh, mbooloo yi àndoon moom liggéey bi nga xamante ne ñu ngi ko doon liggéey ci biir màggal gi yëpp su ko defee mu seedeel ko sëriñ bi mu ñaan te yewi nit ñi incha allahu taala sëriñ Blaha bismillah bismillahi rahmani rahim alhamdulilah wasalatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa xadim bi moom voilà asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax ci turu sëriñ Afia ak turu daayiratu Muxaddamatul Xidma gépp di amaat bu tedd bii muy jataay boo xam ne jataay bu liggéeyal yaakaar ni noonu la gën a baaxee ba ak a yeewee ko doon liggéey boo xam ne dañ ko tàmbalee ba fii ñuy yeewee ko lépp moom yow ko ànd nga taxawu ci taxaw yu am solo ci fànn yëpp mboolem luñ fiy def rek dana mën nañoo wax ne say taxawaay ak sa yitte ak sa xalaat yu rafet mooy la ci jiitu kon nag ñu ngi sant bu baax a baax a baax a ko waxee woon rek ci waxtaan bi ñu doon def béykat biirum ci comité d'organisation bi tàmbalee ba léegi gis nañu wàccuwaay bi nga ci jox daayira Moukhaddamatoul Khidma ak kóolute gi nga xam ne moom nga am ci ñoom ci lépp loo xam ne yaa ngi koy taxawee fas ko yéene fas nañu yéene ñoom itam loolu yi nga koo kóolute boobu nga am ci ñoom ñu di ko jéem a leen seen kemt lay kàttan kon nag ñu ngi sant bu baax di la gërëm bu baax ci taxawaay yi day ñaan suñu borom mu tëbb la kàttan may la wér guddal saw fan ba nga àggale mboolem say naal di la yóbbante ay kantit ci kilifa gu mag gi di Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moom itam ni ñu ko waxee rek noonu la demee ci moom kóolute gu mag la am ci daayira bi diiru ba nga xamante ne Serigne Saliou bu Mbàkke boole woon nanu ak moom ba léegi taxawaay bu ne taxaw nanu ko fii ñëw na bi sax euh, réceptionnel ñu ay bagages yoo xam ne moom la ñu am kon nag ñu ngi sant bu baax a baax a baax di la gërëm di wax na liggéey bi ci tënk bu gàtt rek nii rek la demee woon ci waajtaayu màggal gi ci waajtaayu màggal gi amal nañu ay entretien général mooy mboolem taw gi ak suuf gi ak biir gi ak bitti bi fu ci nekk la ca war ay taxawaay ci ay defaraat ci ak setal lépp def nañ ko ba mu mate sëkk amal nañu itam ay tàggat ci ñi nga xam ne ñoo fi war a liggéey ba ñi war a mën a liggéey lépp ñu mën koo def ci kaw ab yar ak ay teggin ak taal bi bu mat sëkk euh, amal nañu itam benn tournée boo xam ne dañ ko defoon ngir ñi bokk ci liggéey bi te nekk ci ñu fekk leen fañ nekk waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne noonu la liggéey bi war a demee ak ñoom it taxawaay yi nga xam ne moom lañ ci war a am euh, naka noonu itam euh, taxawal nañu itam ay groupe yoo xam ne ñooy taxawee liggéey bi yoo xam ne nii la tëddee am na ci groupe boo xam ne moo yor wàllu ceet gi nga xam ne mboolem waxtu yi ñu war a setal yépp ci diggante waxtu julli yi danañ fexe ba ñu mën seet biir ak biti ko war a defee def am ci ñoo xam ne ñoo yor wàllu gëtt bi nga xam ne ñoo koy xeeñal lu neex lañ ko lañ tuuraay yi ci war yëpp ñu di ko def ci waxtu yi nga xam ne yépp mën nañ ko fee def am na groupe boo xam ne itam xam nañ ne jamono yi ñuy dool dafa tàng te ñuy siyaare si dañoo bari ñoom féetéwoowu damay maye ndox rek taxawu nit ñi ci wàllu ndox am na groupe boo xam ne itam mooy taxawu ñuy siyaare si ci waran yi muy góor ak jigéen yi kenn ñenn ñu nekk am na ñu koy taxawee am na groupe boo xam ne moo yor war ma ji ci mboolem yi ñu fiy tere ak yi ñu fiy digle kenn lu nekk taxawee ba dara du ci ci biir màggal am na ci dem groupe boo xam ne mooy juróom-ñaareel bi mooy taxewu euh, mm, exposition bii nga doon visité léegi euh, kuréel bi am ci kuréel boo xam ne mooy dalal gan yi ci kër Serigne Touba yi loolu lépp ci bu Muxaddamatul Xidma la am ci kuréel boo xam ne ci kuréel boo xam ne mooy saytu euh, barabu fajukaay bi commune am ci kuréel boo xam ne itam mooy saytu communication bi lépp lu ci aju am ci kuréel boo xam ne itam moo yore wàllu waañ bi nii daal la liggéey bi taxaw woon ci biir liggéey bi nag am na ci liggéey boo xam ne wàllu culture la ñoom amal nañu lu toll ci juróom-benni waxtaan li ko tàmbalee 9 safar ba 14 euh, safar yooyu yëpp nag ñoo ànd ko ak yow nga taxaw ci taxawaay bu am solo ànd na tam ak kuréel bi nga xam ne moo yore wàllu ak culture ci magal bi te sëriñ Abdou Lahad ko ñoom it taxaw nañ ci taxawaay bu rafet ñu di la ko seereel amal nañu itam bu mag tuddee ko alxaaj Serigne Mbacké Bousso moom it nag ñu di la seereel ne njabootam tàmbale bi xalifaam Serigne yebal na fi mboolem ay rakam yebal fi mboolem ay doomam njaboot Serigne Mbacké Bousso gépp ñoo mobilisé wu ñëw ci ubbite gi teew fi teewaay bu rafet euh, jël fi kàddu yu rafet taxawul ko taxawee boo xam ne te lu jiitu loolu it mboolem xam-xam boo xam ne bu ñu war a xam la ci suñu bu Buso génneel nañ ñu ko boo ànd koog moom ba liggéey bi ak ba yii ñu la nga nii ñu ci bari ci ay xam-xam ci ñoom la jógee ak yeneen ñu jógee feneen ñoo xam ne ñoom it wéral nañ kon seen taxawaay ñoom it ci exposition bi rafet na lool man na sëkk kon ñu ngi ci ñu ngi leen ci sant ko bu baax te di la ko seeral ndax fii lépp lu ñu fi def rek euh, mel na ni yow lañ ko defal euh, su wàllu wér-gu-yaram it ngi rafet yow taxawaayu district sanitaire bi ñu jiitul docteur day Maguette Diop ak ñi ngi doon coordonné liggéey bi di Modou Fati Diouf ak Lamine Ndiaye taxaw nañ ci taxawaay yu am solo naka noonu itam birwe bi buñ ci dee Abdoulaye Xat Faye ak Aly Guèye moom it danañ yóbbaale ñi ci des ñëpp naka noonu itam ñi nga xam ne ñooy kuréel yi jiite pharmacie yi ci dëkk bi ak ci région bi ñoom ñëpp ci jiitul euh, ci jiitul docteur Mor Diagne ak docteur Thioban ñooñu ñu ngi leen sant bu baax a baax waaye di la seere rek cant waa tam muy waa assistance médicale ni seen taxawaay ci faj mi ñoom it am nañ solo lool am nañ ci lu mat ñett ñeenti yoo xam ne ñoo yore liggéey bi suba ak ngoon guddi ak bëccëg lépp ñu di ko sant it nag kilifa yi nga xam ne andi nañ fi ay garab wala ay jumtukaay tàmbalee ko ci madame Mbacke mi nga xam ne mooy soxna Binta baax di goro ci kër gi di soxna nekk ndaamaatu moom xaw na buñ ko tuddee day yóbbaale nga xam ne ñoo ànd ak moom ci liggéey boobu yépp di sant ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak bitim réew euh, Serigne Assane Diop mi nga xam ne moo ko coordonné mi ngi fi Afrique ci coordination Serigne Mafari Ndiaye Europe ak Amérique ci coordination Serigne euh, Assane Diop moom mu ñu wax léegi waaye dañu mën a ñàkk a tudd nag fondation Amérique bi nga xam ne euh, Serigne Cheikh Jonn moo ko jiite ak soxna May Muna nekk noonu assis yi ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo ci jàpp liggéey bii su ma nee am dafa am ay daayira yoo xam ne ñoo ànd ak daayira Muqaddamatul Khidma jàpp yoo xam ne toll nañu ci seen lim ci mbooloo 1800 personnes ña junni nit ak juróom-ñetti téeméer mu ko nii daayira Muqaddamatul Khidma bu Touba Ilhamul Latiful Khabir bu bi nga xam ne Serigne Assane Yaate moo ko jiite ak Muqaddamatul Khidma bi nga xam ne Serigne Khadim moo ko jiite Khidmatul Rawda bi Serigne Balla Diouf jiite Khidmatul Masalik Serigne jëm euh, Serigne jëm Jaay Khidmatul Masalik Euh, ñuy yor ba euh, boobu itam Serigne Bamba Sell moo ko jiite mu xaadimatul xidma Dakar Serigne Jibril euh, Serigne Jibril Diop Serigne Jibril Dieng Safinatul Aman Serigne Modou Guèye Lamp Fall sécurité Ibrahima Cissé Fatul Faar Serigne Tayer Ndiaye Wakana Xaqan Serigne Massamba Diouf mu xaadimatul xidma Dakar Serigne Gora Sow waa police itam ñoom it yebal nañ fi mbooloo mu takku ñu rafet lu lool seen liggéey ndax wax dëgg yàlla tënku nañ ci li nga xam ne moom la barab bi laaj lépp ci ay taxawaay lëkkale ko ak seen liggéey def li ñu war a def lépp te dara wuute wuute ak war may barab bi ñooñu ki leen jiite mooy leet naa jeng ak ñi mu àndal liggéey bi waa sappoor itam naka noonu taxawaay boobu police am moom lañ taxaw moom it sëñ Ahmad Bamba Jeng moo ko jiite euh, police euh, euh, Croix-Rouge Cheikh Fadiou Seck Sylla moo ko jiite police it Mouhamed Diallo moom itam moo ko jiite euh, naka noonu itam waa service d'hygiène ñoom it liggéey nañ fi liggéey bu am solo bu am solo ñii ma wax nag bokkuñ ci 1800 personnes yi nga xam ne ñoo jot doon liggéey ñi service yi naka noonu docteur yi nga xam ne itam ñoo doon xëy di gont diiru màggal kon ci biir bu ñu seetloo ñi nga xam ne jot jot nañ fee liggéey ci biir màggal bi ñaari junni yi day topp ab ligne kon nag sëriñ bi ñii la liggéey bi demee ren ñii la ko seereel am nañ nag ay yitte yoo xam ne moom lañ daan yitte woon di tey jàpp nañ ne bu duggee seen nopp rek suñu borom dana ko saafara euh, gis nañu ne ren màggal gi am nañ ci jafe-jafe lool ci wàllu ndox ci barab bii di jumaa ji ak barab bee di Bakhiya sonn nañ ci lool am na yeneen i kilifa yi tam yi ci sonn lool loolu nag liñ jàpp ne moo ko mën a saafara mooy ñu xam ñaari oto ndox yoo xam ne ak lu mën a xew benn bi moom day féete ci jumaa ji rek ñu ko génn benn waxtu loolu nag ñu ngi koy sàkku bu a din wàll bu mën a amee amaat boo xam ne day nekk ci barab ya ndax ci génn àdduna ñu war koo waajal moom wax dëgg yàlla mënut a xaar yooyu daal itte la lool waaye itam nag ay baas yu mel ni ñii nga xam ne yaa ngi koy fàggal ndax barab bi dafa doon barab boo xam ne dañ koy taxawal gàmm ci ndigalul Serigne Sidi Muxtaar rawul rayaxiin muxaddamatul xidma ñu di ko ànd ay at mu ne te gàmm gi nekk ci biir nawet Serigne bi it di koy taxawlu njàngoom alquran léeg-léeg muy yaatu wala njàngoom xaside moo xam ne day yaatu yooyu yëpp di am ci biir jumaa ji te di leen lu ci nekk soxla barab yoo xam ne bu dee bëccëg lay doon day daan day am ker su dee guddi mu dox sa diggante ak taw loolu moo tax soxla nañ ay baas yoo xam ne mënu la ñàkk ci barab bi ñaar yooyu daal mooy yitte yi gën a jàmp ginnaawam nag yitte yi bari na lool waaye yii mooy yi nga xam ne moo gën a jàmp ñu dënk foofu sunu kàddu ci turu Muqaddamatul Xidma turu sëriñ Afiya di ñaan ñu teewaat fi ay at yu bari di fàttali Cheikh Xadim suñu borom defal leen wér defal leen faru gudd lool mottali seen yéene ni nga nu taxawoo itam yàlla na yàlla taxawoo nu ko raw ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. xam naa wax jooju gudd ndax waxtu wi dañoo xot rawatina ci barab yi ñu nekk nekk di taxawale sëriñ ba noppi waxtu ji bi di ci fekk moom dañ leen lu dëppoo bëgg-bëgg boobu kon sëriñ Atiya ñu ngi lay. jox kàddu nuyoo ak kàddu yi cant ak mu bàyyi ko Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi Sëriñ Tuubaa tey di ko suuf mu ko ñaan mu yàgg bi ba tànd gër jëme ko ci mboolem daayira mu xaddamatul xidma li suñu daan wax jàng bu ngeen ma sant rek war naa leen sant lu ko ndax yéen kat yéen a nekk ñëpp ci liñ mënta ñàkk muy ci barab bi ak sëriñ ci taxawaay bu ma sëkk te mu ci ay tarafet lool te gëm naa ne dëppoo naa pour bëgg sëriñ bi ndax sëriñ Saliou joxoon ndigal waaye bu fi nekkee sëriñ Tuubaa itam mosu leen di jooy ñoom ci dara lu diglu seen ndigal ak liñ leen wax ñu def ko waxtu itam yéen ngi seet luy gën a rafetal liggéey bi ak ak luy tax mu gën a méngoo borom ña di ko def kon sëriñ bi ne ñu ngi leen di sant bu baax ñi ñi ñi ngeen seq liggéey bi itam suñu seq ci yéen moom suñu lam yi jot na jox ndax jàpp ñenn jàpp ngeen ñu jàpp ngeen ñu taxaw ngeen ci liggéey bi moom rafet kon sant ak ngërëm ak mboolem dayir yi nga xam dañu ñëw ànd ko yéen ndax yéen moom da ngeen seen i guddeeg bu jëkk kon daanaka seenu cant moom borom liggéey rek lañ leen di bàyyi waaye ñu ñëw ànd si ko yéen nag nga taxaw leen ci ba liggéey bi mën a mel te xam ngeen ne jumaa ji moom mooy liggéey bu ndax ku dugg ci rek bi fii mooy sa farata ji jiitu kon taxawaay bu ma sëkk nga ci def ba tax liggéey bi demee nii ñëpp leen ci amee gërëm ñëpp ñëpp leen ci amee ak cant ñaan rek suñ borom gën a doole kattan bi loolu gën a doole wér bi gën a doole kattanu lépp lu ngeen ñan mën ko yof lii nga waxee incha allah dinañ ci waxtaan ñu seet ni ñu ko man a taxawoo rek loolu lépp mën a sotti lu mu gën a gaaw ñu suñu cant ci yéen a cantu sëriñ ndax sëñ bi itam doyloo bu ma am ci yéen rek am na ci yéen doyloo bu ko ndax am na yàq ci yéen xam na seen doxal ndax yàlla defal leen tawfeex mosu leen def dara loo xam ne kenn mën leen jagam kon nag loolu moom ginnaaw bi ngeen doon doon ci sëriñ bi booy ko ko di doxawaat moo leen koy kon nag ñu jeexal foofu kàddu bi bu guddal bu ko defee suñu affaire ñu dajaa fi ngir mu Sëriñ Tuubaa te képp ku fi jëfa dikkoon dem liggéey fi ngir Sëriñ Tuubaa yàlla na tàbbi ci wax di si ne daa moom fii xidmati wa abdahu maaraam asalaamaaleykum wa waaleykum salaam wa rahmatullah. téere bi sëriñ bi mooy liggéey bi daayira bi di def ci jumaa ji waxtaan yooyu ñuy def ci koor gi moo nekk nii na ñëpp amaasee tàllal seeni loxo.